daje bi nga xam ne ñu ko doon def tey jii li ko waral yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mooy bis bi nga xam ne mi ngi sunu kanam muy le 11 aut wara a mën a dëppoo benn fan war ñaari fan ci weeru muharam te Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di xalifa général de Mouride joxe woon ndigalul su bis bi ñëwee ñu jàng si xasida mooy bis boo xam ne kon journée xasida la bis boo xam ne nag wuute na ak journée xasida yi nga xam ne moo daa am ndax bis bi ki nga xam ne mooy jiital yoonu murid yëpp moo ko santaane loolu nag tax na mboolem yi nga xam ne ñoo ko seq di sëñ Youssou Diop jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah di sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xamante ràññ ko lool ci xasida yi ba sëñ bi bi mu jox ndigal li sëñ yuusu da ko jox ndigal nekkoon a dem ba sëñ sa yëgal ko ko kon loolu nag muy bis boo xam ne bis bu màgg la wàccaay wi tamit di wàccaay wu rëy loolu nag ndigal li moo ñu defee ko ci jumaa ji ak li ko wër topp ko ba egg daaru minam kon sañ naa wax na jumaa ji mooy le théâtre des opérations mooy barab bi nga xam ne fi la lépp di ame loolu nag kenn ku nekk xam na ne mu muxaddamatul xidma moom la sëñ Touba jox barab bi mu koy taxaw du ko saytu ci anam yépp muy barab boo xam ne des fi julli des fi jàng des fi siyaare seen yitti jëpp nag jëm ci taxawu barab bi di ko toppatoo ba li sëñ Tuubaa bëgg mu am fi di fi am kon lu mel nii soo koy def mënoo ñàkk toog ak moom waxtaan ak moom ngeen nos ci anam yépp nuñ koy defee ngir mu gën a dëppoo ak li nga xamante ne moom la sëñ Tuubaa bëgg loolu moo tax tey jii kon jëwriñ daara ji sëñ Youssou Diop teewoon fi ay ndaw yi sëñ eh, Amsa teew fi ak commission yi nga xam ne ñu seq liggéey bi ñu ñëw teew fi ànd ak waa Moukhaddamatoul Khidma ñoo tam ñu teew fi ak mboolem seeni commission ñu topp ko commission bu ñu jël wax ci ba tënk ci dara jëlaat beneen topp ko noonu ba commission yëpp jàll nga xam ne wax na jëm ci wàllu aménagement mbaar yi ñu fiy def nan lañ koy defee nan moo gën a jaadu gën a jekk ci ñu war ko mën a defee wax nañ ci wax nañ ci wala sonorisation bi nan lañ ko war a nosee ba mu dëppoog li nga xam ne moom méngoog barab bi wax nañ ci wàllu communication nan lañuy defee reportage yi ak li ci aju lépp nga def liggéey bu mucc ayib ci ko jàllale bi àddina sëpp gis ko nan lañ mën a nosoo ba ànd def loolu dëgg la ma amoon ay euh, commission yu amoon waaye commission yooyu nag doon war a jokkoo ak commission Moukhaddamatoul Khidma ngir ñu ànd liggéey boobu restauration waañ fi war a am ndax togg yi danañ ko def ci ay barab yu fasanti ko ci dëkk bi waaye su noppee dañ ko indi fa mbooloo mi nekk war koo seddalee mu jëm ci wàll mbooloo mi kon loolu tamit yan barab lañ ko war a defee ak nan lañ ko defee loolu lépp doon na loo xam ne mas nañu ànd tënk ko ci gàttal daal bàyyiwuñu lenn bi ñu fi jógee nag gannaaw bu ñu julee timis ba noppi dafa mel ne ñëpp feeñal ak cant ndax yëg nañ ne ay turu mbooloo moo wuute. waaye xel yi ak xol yi ak jubluwaay lépp benn la kon bu ñu fi jógee daal kenn ku nekk am nga sànniyaay wax ne xol bu sedd ci yaakaar it ne nii ñu nos suñu amee ndimbal ak tawféex ba jaar ci li nga xam ne mënuñ sàq ci ngërëmu Sëñ Tuubaa dañ ko mën a am ci gàttal daal dafa mel ne ñi ko seq ñëpp daal bu ñu fi jógee xol yi sedd na xol yi dal na am nañ yaakaar gu dëgër gu wér te ñaan ñaanal Cheikh Mawdo Muntaxa Mbakke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér إلى الكتاب